ndaw ñi ah góor la dégg nga nee na sa papa ah <laughs> kon sa doomi maam sa lan la sa nijaay la loolu nag ñu baree bari kon noonu mbokk mi ni mu ko déggee noonu ñu baree bari leneen lañ lay wax sax lu gën a sori loolu ki nga xam ne xamoo lu ngeen bokk xam nga ne rek kii sama mbokk la ñu wala ñu jox ko sax autour ñu sama cousin la wala sama jegeñaale la wala yu mel noonu kooku jokkoo bokk gi war a dox sa diggante ak moom day des boo gisee mag ñi jëkk ci daan sonn ci wet yooyu gone gi bu tàmbalee di xàmmee ku bokkal dara ku nekk danañ fexe ba xam ne kii nangam la ci moom diw sangam sa bàjjen la diw mooy sa doomi bàjjen diw mooy sa doomu nijaay diw nangam sa maam ak maamam ñoo bokk dem nañ ba bokk yu sori yi sax dañ ko daan xam xamin wu leer nañ su ko defee boo jógee jëm kër diw da nga xam ne sama kër nangam laa jëm waaye da ngay jóg di dem ñu la foo jëm nga ne rek sama kër sama sama mbokk la daal mais nag xaw ma lu mbokk xam naa daal mbokk paa bi la su ko defee bokk gi ni nga ko war a doxee dëgg-dëgg doo ko doon kon xale yi faw ñu jàngal leen itam seen bokk yi seen jegeñaale ñi ak ñi nga xam ne seen askan lañ nan lañuy jokkoo ak ñoom ak bokk Abu Bakr Siddiq dafa daan wax ne jàng leen jàng leen ci seenu bokk ci seenu askan loo xam ne da ngeen ci mën a jokk seenu bokk parce que boo xamut lu ngeen bokk doo mën a jokk sa bokk sa digganteeg moom jàngal ko itam laa biir ak nangoo sonn ci keneen nangoo jóg di def effort ci yitte boo xam ne yitte keneen la loolu lépp ay jikko yu rafet la yoo xam ne dañ ko war a jëmbat ci xale bi fexe ba jëmbat ci ñoom itam ah, jikko yi nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon muy asalafu saalix niñ meloon ci wàllu njàmbaar niñ meloon ci wàllu nangoo joxe seen alal niñ meloon ci nangoo joxe sax même seen bakkan niñ meloon ci fulla niñ meloon ci bëgg lu baax ak bañ lu bon di leen jàngal ci seenu dund nañ meloon di ko nett li ñuy dégg kooku lu am njariñ ci jëmbat xale bi la ak fexe ba mu sax doon koo xam ne bu ñuy xalaat ci jàmbaar ca nit ñu baax ña la koy xalaat waaye su fekkee ne feesaloo xelam ak jàmbaar yu mel noonu bañ fees dell dell bëgg-bëggam day jël yeneen i jàmbaar ci leneen fas yéene bëgg mel ne ñoom leneen lu ñu tudde jàmbaar da gis ñoo xam ne ngir ne gisaguñ wanaguñ leen jenn jàmbaar mosuñu koo dégg dañuy xool ci match bi football bi bu ñu xoolee gisee ah kii kat moom mooy jàmbaar ji moo def nangam moo dugal nangami bii ñu ne kooku mooy jàmbaar kon kooku mooy ki fës ci kanamam bu ëllëgee soo ko woowoon di ko laaj noo bëgg a mel bu ëllëgee da lay wax ne damaa bëgg a mel ne diw buy sol ab tiset bu muy sol sax day tànn boobu diw sàngam sol ko parce que kooku mooy jàmbaar fi moom famul keneen su fekkoon ne nag mag baax ña fi nekkoon jàngal nga ko seenug dund bis bu nekk nga jël ab téere toog ci kanamam wala ab kaset boo xam day jàngale dundug diw sàngam ñi nettali ko nettali bu yem boo xam ne gone da koy mën a dégg doo ko xóotal diw sàngam moo jaaroon fii moo def nangam moo def nangam ak njàmbaar goo xam ne bu àggee ñëpp dañ koy bëgg kooku boo la boo laajee jàmbaar mooy kan kooku dana ne la Omar ibnul Xataab boo laajee mayekat ba mooy kan dana ne diw sàngam ki ëppoon fulla ci saaba yi dana ne diw sàngam su ko defee yooyu bu feesee dell ci xelum gone gi moo koy jubbanti mu nekk nit koo xam ne ku jub lay doon jàmbaar ci kanamam itam ay jàmbaar dëgg-dëgg la ñuy doon waaye duñ doon nit ñoo xam ne eh, ay fokkat lañuy ñuy doon wala na doon ay tëggkat ak fecckat fu dara nekkul nag lu fa jëkk ñëw rek loolaa fa nekk loolu moo koy waral su ko defee gannaaw boo xamee ne fexe nga ba jëmbat ci ñoom jikko yu rafet yooyu fexe it ba bañ loo leen fexe ba bañ loo leen jikko yi nga xam ne yu bon lañ tajnibuhum al axlaaq ar radila wa taqbixuha fi nufusihim gone gi war nañoo fexe ba mu bañ fen mu yëg ne fen ak ñàkk solo la ak suufe la ak doyadi la ak ragal la sax ku nëbax ragal mooy wax lu amut fexe ba yu mel noonu ñu def ko ci xelu gone gi ba tax mu wattandik lu mel noonu war nag taxul ñuy wax kiñaan fexe ba bañ loo ko ko fexe ba du ragal fexe ba du doon koo xam ne bopp sa bopp looy yëngu loolu rek ci si bopp nga nekk waaye doo yëngu di defal keneen leneen ak bépp jikko boo xam ne bu suufee la kooku nañ teel a jëmbat xale bi ci mu yëg ni jikko jikko sàngam baaxut jikko sàngam baaxut yooyu nag day dëkk ci noppam ñi di ko ko wax di ko nettali ci dund ñu baax ñi luy wane loolu boole ko it ak di ko dund nag ci kanamam bu di ko xam bu di ko gis ndax ay waajuram moom lu mu mën a jàng ak lu ñu ko mën a nettali ñaari waajur yi ñooy royukaay bi bokk na ci it yar leen taalimuhum al umur al mustaxsana charan yi nga xam ne charia dafa bëgg nit ki fonk ko di ko def ñu fexe ba yar ko ci mu mel noonu loolu dana tax mu amug yëg dana tax lu ma war a bàyyi xel lu ne mu bàyyi ko xel lu mel ne su nit tislee fi moom wax alhamdulilah nañ ko teel a jàngal yarxamukalaa ne ko moom nga ko war a wax na teel a xam loolu na teel a yëg ne bu dee bélbéli lenn ci yéen di ko wax wobb li day jël gémmiñam ub ko ak loxoom bañ ko def noonu ci biir nit ñi loolu ci teggini lislaam la bokk nañ ko teel a jàngal ne nit ki ci loxo ndeyjooram lay lekk nañ ko teel a jàngal yar léeg-léeg nga gis mag ñi nga xam ne jàngaluñ leen yu mel noonu dañuy def yu doy doy waar dem ba màggaale ko léeg-léeg nga gis koo xam ne ci biir sàppe nekk di julli léeg-léeg day téen rek di tisli tisli yu méttee métti ba nga xam ne ñi ko wër dañuy dem ba sonn ànd ak ne tisli moom daa nit ki mënu koo téye waaye moom mënoon naa jël ay loxoom teg ko ci kanamam wala mu jël musuwaar teg ko ci kanamam ci biir tisli yi ba lay naawee ci ay bakkanam ak gémmiñam du naaw di dem ci nit ñi kooku yar moo ko indi léeg-léeg nga gis koo xam ne ci biir julli lay nekk day bébb li ba téen nga dégg sax ah léeg-léeg ci biir ci biir julli gi kooku day fekk ne xale bi yar gañ ko waroon a yar bi mu nekkee ndaw ci yu mel noonu leen lu ne mu xam nañ ko war a def dañ koo neenaloon ba mu màggaale loolu kon lekke nday joor buy faj aajoom ca wana wa nan la ko war a defee teggiin yi mu war a def ci wàllu bu duggee ci aw nit war leen a nuyu ak bu ko aw nit nuyoo ban taxawaay la ca war a am teggiinu buy wuy sax téléphone nan la war a def teggiinu bu gan ñëwee sax ci buntu kër bi mu ñëw di ko ubbil ban melokaan la war a def léeg la nga gis koo xam ne ca kaw lay nekk naan la kooku boo fëggee buntu gone gu ndaw naan la kooku kooku fekk na loola waa kër gi ñoo ko def suñ ko yaraloon teeloon a yar mu yëg ne kat gan su fëggee bunt da war a ñëw ñëw ba ci bunt bi soo ko dee laaj kooku nga door koo laaj kooku wala boo ubbee ba noppi nga wax ak moom mu xamal la ne mooy diw sàngam diw sàngam la soxla su fa nekkee nga ne ko xaaral dem ca moom ne ko diwa la soxla mu ne la ñëw na ñëw nga delsi ci moom ne ko nee na nga ñëw teggin yu mel noonu teel ca yar gone ji lu am am solo la lu am solo la teel leen jàngal itam wax ci làkk woo xam ne làkk wu set wecc la làkk bu ñuy dund mu doon làkk woo xam ne wuñ munta bañ a xam la na ko waajur yi di waxante ci ñoom fi moom waxin woo xam ne waxin wu set la ndax mu man koo dégg lépp loo xam ne daal bëgg nga gone gi màgg ëllëg mu noppal ko ci wàllu tegginam ak yaram ci wàllu diineem na nga teel a sonn ci jikko boobu nga teel ko jëmbat ci moom ci bi mu nekkee xale lépp loo xam ne ñaari waajur yi miinal nañ ko ko loolu moom lay miin bu màggee moo tax woykat ba day wax ne wa yansha'u naashi'ul wildaani fiina wala naashi'ul fityaani fiina ala ma kaana awwadahu abuuhu ki nga xam ne mooy ndaw lañ jëmbat ci moom ay waajuram jëmbat ko ci rek loolu lay màggaale wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko kenn ku ci nekk buy juddu ak laab lay indaale maanaam këyit wu weex tàll la ah ay waajuram ñoo cay ñoo cay def lañ soxla bu màggee doonum nasaraan ñoo ko ko def bu màggee doonum yahut ñoo ko ko def bu màggee doon leneen it majuus jaamukatu sawara wala jaamukatu xiram su boobaa waajur yi ñoo ko ca def waaye moom bi muy ñëw ak laab la indaale woon loolu nag ki ko xam wax dëgg yàlla war naa góorgóorlu ba du gàddul gone àq fexe ba kayitam mu weex woowu su ci bind mu bind ci loo xam ne lu baax la bokk na ci it yi mu war a góorgóorlu ma alxirs ala isticmaal al ibarat al maqbulati al tayiba ma al awlaad fexe ba jàngal gone ji wax joo xam ne wax ju sell la wax ju laab fexe ba aw làmmiñam mucc ci lépp loo xam ne xeetu saaga la gone gi nekk ci kër di saaga judduwaalewut saaga judduwaalewu ko ndax kat gone gi lu ñu la mën a wax mooy aw làkk moom euh, du ko judduwaale fa muy jànge wax ña fa nekk la ñuy wax loola lay wax xallaaw boo jëloon fii gone goo xam ne ndey mag baayam ay wolof lañ yoo xam ne ñu nga dëkk ci kajoor wala ci njàmbur nga jël ko mu doon gone guy nàmp nga jël ko jox ko tubaab yoo xam ne tubaab dong la ñuy làkk buy jàng waxit tubaab lay làkk buy jàng tubaab lay làkk kon ña muy dégg ñiy wax jamono ya muy jàng wax la ñuy wax lay wax kon kër gi jamono yooyu dox ba mu yàgg nga dégg gone gu saaga xamal ne mag ñaay saaga jàngiwu ko fenn ci ñoom rek la ko dégg ñoom nag bu ñuy saaga amaana saagaante wuñ waaye gone gi ci boppam la ñuy saaga gone gi nag bi nga ko saaga moom itam day jël saaga woowu te bul xam nag ku mu koy jox bu yow mi ngi ko jële woon ci yow bu mën na la ko joxaat su ko defee nag eh, adduna di bëgg a tukki nga ne gi day saaga aw mag day def nangam def nangam fekk yow yaa jàngal saaga yaa ko doon saaga ba mu xam ne ku mer da war a saaga te merloo nga ko moom it mu saaga kon loolu yow yaa ko defoon ci moom kon ay mbir a ngi foofu yoo xam ne yu aaja tey la euh, jéem ko jàngal ba su meree mu mën a téye boppam du saaga walla fexe ba su meree sax wax kàddu yoo xam ne yu am njariñ la su bégee it fexe ba wax kàddu yoo xam ne yu am njariñ la su gisee lu baax mu ne macha allah fexe teel a def loolu ci làmmiñu xale bi gis na lu baax mu ne macha allah gis na lu baaxul wala lu ko yéemut mu ne subhanallah waxiin yu mel noonu yooyu la ñu teel a jëmbat ci gone yi waaye fexe ba saa bu meree saaga kooku mag moo koy def ci gone ginnaaw moo ko ci def nag mën naa fexe ba def ci leneen loo xam ne lu dul loolu fexe ba def ci lu baax bokk na ci yi nga xam ne war nañ cee sonn it mooy gone gi euh, al xirs ala tahfiz al awlaadi kitab allah te leen a jàngal alxuraan itam ci yi nga xam ne yiñ war a góor góorloo ci la bokk alquran ak jiitoom ci gone am na solo lool dana ubbi am xelam ëllëg ngir xam-xam bu ñëwati bu nekk mën a jàll jàllin wu yomb jëmmi alxuraan ci boppam jàngal ko ndaw ñi sax na ne dana far dana far merum sunu borom tabaraka wa borom bi mën naa mere waaye juri xale bi ci sababu seenu dugal ko muy jàng alxuraan mer moomu mu leen mere woon mu dindi ko kon alxuraan jiitu ci dënnu gone lu am solo la moo xam da koy jàng lépp ba mu mokk wala da ciy jàng lam ci mën a jàng waaye fexe ba gone yi ñu jàngal leen alxuraan loolu lu munta ñàkk la njariñ yi bari na loolu jéggi na dayo loolu rek loolu rek doyoon na aw waxtaan muy njariñ yi nga xam ne alxuraanul karim teel ko jàngal gone yi am na ko ci ñoom waaye dañuy junj rek bokk na ci yooyu mooy taxsinuhum bil adkaari sharciya fexe ba teel leen a jàngal zikkar yi nga xam ne ñoo jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu koy sikkar moo xam subaa ngoon la wala suy dugg ci wanag wala suy génn ci wanag suy dugg ci jàkka su génn ci jàkka bépp zikr wala tudd yàlla boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko tam woyof ci gone ñi teel ko jàngal xale yi ñi teel ko mokkal loolu itam lu baax a baax a baax la bokk na ci itam alxirs ala masalati tarbiya bil qudwa jiima góorgóorlu ba li ngay yare gone gi nga doon ci moom royukaayam nga doon ci moom royukaayam ndax kat gone gi li wér wér mooy ak luñ ko mën a jàngal ak luñ ko mën a xamal ñi mu dëkkal ci kër gi ñooñu ñoom ñooy royukaay bi muy jëkk roy ndayam ak baayam lam gis ci ñoom loola lay jàpp ne lii mooy dëgg ndax kat jamono yi mu nekkee xale juróom-ñaari atam yu jëkk moom gone gi li gën a rëy fi ñoom li gën a rëy fi gone gi ci jamono jooju gën faa màgg mooy ñaari waajuram keneen ku toll noonu amaatul fa mu leen teg tegu fa kenn moo tax lu ñuy def lu ne noonu la lu ñuy bàyyi lu nekk pour moom des ko war a bàyyi luñ ne baax na moo baax luñ ne baaxul baaxul ginnaaw noonu la nag ñoom ñaar am nañ foofu responsabilité bu rëy rëy rëy kon jiim leen a euh, yar ci seen comportement ñoom ci seenu dund ni ñuy jëf leen jëflantee ñoom ci seen bopp fexe ba daal ci yarin wi contradiction ba a am ci seenu dund ñoom di wax dara boole ko di def leneen lu bokkut ak li ñuy wax kooku day jaxase gone moom dafay daal di jaxasoo du xam lii lu mu doon ndax du xam liñ wax lay def wala liñ def lay def te it la chaque année lam gis ñu koy def loolu mooy gën a dëgër ci moom wax ko lii tey itam mu def ko ba léegi nga wax ko leneen lu bokkut la nga ko waxoon mu doon contradiction la nga ko digaloon wala yaay ji digal ko li baay bi jóg ne ko defal lee ñi di ca xuloo ñaar yooyu ci yi gën a mën a yàq xale bi gën koo mën a jaxase ci la bokk nañ fexe ba bennale seen kàddu teg ko ci aw yoon suñ koy jubbanti bokk jubbanti ko suñ koy digal bokk digal ko suñ koy tere itam bokk tere ko